devenir nag mooy nit ki boo nekkee ci biir Sénégal war nga mën a dem fu la neex ci biir Sénégal te am nga droit aussi nga génn Sénégal dem tukki loolu mooy le droit d'aller et alors dossier bi ñoom dañuy wax ne Bougane dañ ko dañ ko dañu wax ne Bougane Gueye Dany dañ ko dañ ko arrêté parce que président de la république mu ngi woon Bakel mu ngi woon Bakel moom bi ñu ko arrêté sax taxaw na mais yéen xam ngeen ne Sénégal c'est pas parce que président de la république mu ngi dem fen que ñun citoyens yi amuñu droit circuler donc loolu bon on l'a plaidé on a on l'a expliqué au juge on lui a rappelé que le Sénégal est un pays démocratique, mm. n'est-ce pas mm. Et que le juge, c'est lui-même qui doit garantir aux citoyens mm. la liberté d'aller et de venir. Donc vraiment, procès bi, je pense que Sénégal, le Sénégal a intérêt à ce que nous baillons Bougane Vous voyez Parce que c'est une violation flagrante des droits et libertés d'une personne. ci ak ak ak ak amende bu cinq cent mille ma ciy indi comme leer. li ma ciy indi comme leer xam nga procureur moom dafay laaj rek. c'est une partie au procès. donc euh, donc lecture bi ñu ci mun a am. bon mun na nekk ñaar sur le plan politique. ça peut signifier qu'on peut qu'on veut empêcher à Bougane de faire de faire sa campagne électorale parce que après tout il est candidat nest pas à, à la députation. Et il est sur les listes et il doit faire campagne. Donc, pour nous trois <laughs> mois, ça veut dire qu'il ne fera pas campagne. Donc, si le procureur demande ça, ça veut dire qu'il cherche à éliminer un candidat à l'élection législative. Euh, Bougane ba léegi moom dafa euh, taxaw ci li nga xamante ni moom euh, wax ba kii ba kii démb ni que loolu la réitéré fii ci biir tribunal mais loolu la wax moom mais mais xam nga xam nga le cas de Bougane fait yi ñun ñëpp on les a en direct amul. ku ump li xew gendarme bi arrêté na ko ne ko sama supérieur hiérarchique moo ma ne naa la arrêté doo dem Bakel mu ne ko waxal sa supérieur hiérarchique Bougane day dem Bakel waaw mais loolu nag vraiment bu fekkente wax na ko waaw il a répété parce que noonu la demee xam nga xam nga police ak gendarmerie waruñu jël ay instructions yoo xam ne dañu illégal vous comprenez parce que quand suñu réew mi wax naa la droit n'est-ce pas d'aller et dafa am ay décisions yoo xam ne police wala gendarmerie bu koy jël dafa war a fondé wu sur une décision administrative te décision administrative boobu mhm. dañ ko war a motiver mhm. état de droit noonu lay fonctionner mhm. mais un commandant de brigade ou un général warul yeewu benn bës rek ne voilà kenn du dem fii parce que simplement président de la république dafay dem vous comprenez xam nga loolu xam man bi ma juddoo ba tey mosuma gis loolu mos ngeen ah. gis fu président nekk ñu ne citoyens yi buñ fa dugg mais loolu amul fenn surtout dans un pays démocratique comme le nôtre. Hmm. voilà donc de manière officielle juge bi tranchégul en ce moment El Hadj Diouf mooy plaider. Hmm. après ce sera maître Amadou Sall. Hmm. donc ñoom xam naa bu ñu paree dinañ mën a kii dinañu leen gën a. mën a ah loolu xaw ma ci dara. loolu ah, ah waaw moo tax ñu ñëw fii. Ah, bon comme je dis on est dans un pays démocratique. J'ai dit une fois que dans un pays démocratique, on doit créer un équilibre. Un équilibre entre l'autorité et la liberté. Mais chaque fois, l'équilibre doit être favorable à la liberté. loolu mooy démocratie. Maintenant, comment organiser ce, cet équilibre? Il faudrait que les décisions que la police prend, n'est-ce pas, soient sous-tendues par une décision administrative motivée. Parce que s'il y a des problèmes de sécurité quelque part, il appartient au préfet de prendre une mesure, en arrêté, et de dire que de telle date à telle date, il est interdit de, de fréquenter telle zone pour des raisons de sécurité. Et cette décision, elle doit être publiée pour qu'elle puisse être opposable aux citoyens sénégalais. Mais si cette décision n'existe pas, on ne peut pas prendre des instructions, les donner à des policiers ou à des gendarmes qui se mettent sur la route, qui, en dehors de tout contrôle routier, effectivement le gendarme quand il te contrôle pour des raisons quand il contrôle ton permis de conduire n'est-ce pas tes pièces il a le droit de t'arrêter pour ce contrôle-là et si tu ne t'arrêtes pas tu commets le délit de refus d'obtempérer mais ce n'est pas le cas en l'espèce Bougane n'était pas arrêté n'est-ce pas pour un contrôle routier et d'ailleurs même il s'est arrêté il s'est arrêté le problème c'est que après s'être arrêté et qu'on a le motif pour lequel on l'a arrêté, n'est-ce pas Il a dit que je vais me rendre à Bakel, parce qu'on est dans un pays démocratique. Il a même dit les mêmes mots qu'il qu qu avait... Mais oui, il a dit la même chose. Il a même dit la même chose. On a entendu les gendarmes et les policiers qui étaient là-bas. Donc ils ont dit qu'ils ont reçu des instructions pour arrêter le convoi de Bougan. C'est ça qui est grave. Des instructions venant de qui Des instructions venant de leur supérieur hiérarchique. On leur a demandé, mais est-ce que les autres véhicules passaient Mais les autres véhicules passaient. Donc si c'était une mesure qui concernait, n'est-ce pas, l'ordre public et les bonnes mœurs, on aurait dû arrêter tout le monde. Moi, on ne peut pas arrêter le, le, le véhicule de Bougane et laisser les Ndiaga Ndiaye et les autres de l'injustice. mais c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui je peux pas le dire parce que c'est le juge qui va décider s'il va rendre sa décision aujourd'hui ou s'il va mettre l'affaire en délibéré. merci beaucoup merci beaucoup.